jaa ngeen jëf jaajëfati sama gars yi bëggee naa leen baax xamante nañ mbégte contentement di leen jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi nekk di seetaan Elmo jaajëf di euh, félicité gaynde yi nga xamante ni euh, demoon nañ jongante fi nga xamante ni moom mooy Cameroun maalum Coupe d'Afrique bi ñu daaj ñuy indil loo xamante ni moom lañ gënoon a soxla indil nañu ko fi nga xamante ni moom mooy Sénégal démb moo taxit sa wóole nañ kontaan nañ bëggee nañ mais avant loolu dafa am loo xamante ni faaw ñu wax si moom mooy VAR VAR a noonu parce que am na sëriñ yoo xamante ni génnoon nañ daal di wax li nga xamante ni moom mooy Coupe d'Afrique bi comme ni ñu ko daal defee ku si nekk daal di génn wax lu la neex wax lu la saf moo tax it nag képp koo xamante ni waxoon nga rek dañ koy daal di indiwaat wax la li nga xamante ni defoon nga ko fi tey nag dañuy ñëw si koo xamante ni ko am solo avant tout dañ koy laaj li nga xamante ni ba xam wax ji moo ko waxoon sëñ bi yow yaa waxoon Sénégal du jël coupe. Eh, yow yaa waxoon Sénégal day jël coupe wala jël coupe. kii moom lan tax war yaa waxoon Sénégal day jël coupe wala waxoo ko woon waaw man maa ko léegi yow fan nga tegoon ni Sénégal jël ko. dogalu yàlla la dafa am loo xam ne dogalu suñu borom la Sénégal dogalu yàlla la boo xam ne moom moo ko def du ma si jël coupe ci Sénégal. est-ce que xam nga ne waxu fi dara. <laughs> yow leer na leen ni que yow da nga ñeme yàlla. waaw. <laughs> leer na leen ni yow li nga doon wax ni yëpp xam nga ni tegoo ko fenn. waaw léegi yow bi nga yëgee ni Sénégal jël na coupe Rousseau. yàgg xam nga ni kay carrément kay yow waxoo woon dëgg. waaw d' accord ce que xam nga ni yow Sénégal yëpp xam nañ ni yow waxoo dëgg. waaw d' accord nga si loolu. waaw laa lay bëgg a xamal coupe d' Afrique bu ñëwatee boo génnee wax ni Sénégal nangam rek wala nga wax sa coupe bi rek dinañ ko digaale ak yow est ce yaa ngi dégg. <laughs> léegi yow. ñëpp xam ne ñi waxoo dëgg parce que Sénégal jël na ko coupe bi nga waxoon du fi am parce que Sénégal jël na ko d'accord li nga doon wax noonu kan ma la ko waxoon. lu ma suñu borom walla te man lépp loo xam ne yàlla wan na ma ko lu leer lay doon loo xam ne lu lu ma ci wax loolu dafay am. ñëpp xam nañ ne matu. <laughs> il est fou mais da koo donn. <laughs> léegi comme que ku def lu paas nii d'accord ñëpp xam ne ñu waxoo dëgg coupe du monde bi Sénégal nu muy def. <laughs> ñaari ñaari maximum yi football yëpp dañ koy dóor. astafurlah. <laughs> waxati nga de. <laughs> xaw ma tax Sénégal yi dëgër fii toog si télé ñu dekk le micro nga commencé di wax li ngay wax leer na ni que yow mii dara wóor la si. imagine toi rek wax ju mu doon wax tombé Sénégal demul li nga xamante ne moom mooy quart de kon cest dañ koy gëm ni li mu doon wax dëgg la fekk moom lu mu doon wax amul fenn fu mu ko teg toog si télé. ngay waxee sa nafsu bopp te leeral ni ko yow li ngay wax nekkul dëgg daal je suis peur